di am mbégte dase euh, ak yéen di remercier toute la presse sénégalaise bi nga ñoom ñoo fi teer tey euh, pour assister ci séance d'écoute euh, troisième album bu Aïda Samb bu tudd comme ni ko waxee on va procéder déglu morceau yi nga xamante ni jot nañu ko déglu en premier lieu on écouter Laalia Laalia sama man dañ ma ko nangul léegi nag àdduna dañu toll foo xamante ni nit ñi léegi nangalutuñ nit ñi li leen suñu borom may peut-être ba ñu dem ba danañ def ñu indi soxor iñaan ak di ñeetaate te yooyu yëpp dafa bokk loo xamante ni dafa yàq suñu société bi man nag ma ñëwee ci beneen côté boo xamante ni dama wone ne sénégalais yi àdduna bi nañ nangul ne Aïda Samb dafa mën a wér donc bi ci topp nag seen chanson boo xamante ni dama ko rendre hommage euh, suñu papa suñu référence suñu idole euh, Youssou Ndour leer na leen ne euh, bi ñuy waaj a dem Bercy dañu taxaw grand théâtre répétition sax la ko njëkkee mu ñëw fekk ñu ñuy répété mu ne ñu jékki-jékki rek mu woo ma ni ma dama bëgg nga reprendre sama benn morceau boo xamante ni nii mu tudd dabi ma reprendre ko sénégalais yëpp kontaan si am si mbégte euh, apprécier ko bi may def album bi nag ma ne comme moo ma ko joxoon ni ma naa ko woyaat man ma reprendre ko ci sama album boole ci samay feem woy ko ci sargal ko ci euh, mooy woy tuddee jigéen buy sëy euh, morceau boobu ça parle de ça. Euh, léegi nag dañuy déglu li nga xamante ni moom mooy euh, turu album bi tuddu morceau bi nangu la balaa ñuy déglu Youssou Ndour mu rendre hommage son mentor ki nga xam ne moo ko gunge ci musique sénégalaise ba tey Aida ku ne bëggoon nga mu nekk sa ginnaaw mu nekk ci ginnaaw Youssou nekkin mu rafet woo xam ne tarkal la balaa Youssou di woy ak lu mu mën di doon Aida dina def première partie bi ñu soog a yeggali album bu bees tàq nangu Aida woy ko léegi pare ne musique sénégalaise war nañu ko nangul ni daa mën a woy biir bu yemoon ci mën a woy traditionnel rek ñu ne bongo Aida moo mën ci moderne Aida woy na fi ay afrobeat Aida arène bi woy na ko fi yaakaar naa ni bu génnee album Sénégal ñëpp xam ni way ni bi génne na album waykat bi génne na ay def du ma yàgg nag damay bàyyi ñu déglu Youssou Ndour maa ngi ñëwaat léegi album bi man ak yéen ñoo koy décortiquer ensemble lañ ko déglu ma xam ni way wi bu génnee xale yi jigéen yii sëy te bëgg a sëy buñ ko dégloo mu yee ndax am sëykat du yow sa jëkkër kese say njëkk yi ci lañ bokk goro yi ci lañ bokk rek jëkkër yi ci lañu bokk te fi jamono toll ak say internet yi xew léegi xale yi xamatuñu fu ñuy taxaw bu ñu dégloo way yu kat dina leen yee kon yow macha allah way ngir yeete yàlla yàlla guddal a ngi lay bàyyi xel. سوري